Ah, dal leen ak jàmm ci suñu chaîne bi di suñu gox TV nuyu nañ leen bu baax a baax ziar leen di leen ñaanal jàmm nag waaye it di ko sàkku ci yéen di ñëw ak yéen nag ci suñu série bi rek di le polygame le polygame nag doon série bu neex nag macha allah série boo xam ne ñëpp ko bëgg ñu ñëw ak Ndeye Ndiaye nag ak Astou ak Khary Baba toog nañ nag teg seen i sachet nag di lekk nag seen i fataaye di def seen noos daal Ndeye Ndiaye nag la nga xam ne moom la ootee sak Astou nag ëpp na sàjj nañ nag seen i voile yu jongama sañte bu baax nag Khary Baba nag ne leen nag ndax da ngeen ma cee war nag di boole bu ngeen di def yi ba nee nañ ko nag sa 6 mètres nag mi ngi ci téyër ba caam nag na bi nag nee ñu leen damay bokk par force su xadi baaba nag ne ko bokk di njëkk teggil aw nag papaam woo na ko di waxtaan ak moom pour mu moytu ndax xam na ni xadi baaba nag na ni xadi baaba moom lu mu jàpp lu nekk du ko ko gisee rek muy tibb tànku xanaa lu mu def gudd waaye am na fitu nag def lépp aw nag nee na ko dégg naa bu baax a baax li nga wax nag te xam nga ni yow papa sama xarit nga te sama tippoo nga nag te loo ma wax lu nekk rek loolu laay def ñaar ñi nga xam ne nag moom dañoo juboo macha allah nag muy xadi nag ak ki nga xam ne nag moo di Fatou Kiné toog nañ nag di waxtaan Fatou Kiné nag mi ngi kaañoo xadi nag naan ko sa tufi démb bi nag xanaa océan Atlantique nga ko ñu lugee ba xadi nag commencé nag di gis boppam nag naan ko bàyyil tooñ nag ak bàyyil ruube mën ngay tooñ fàcc na nag nee na ko dangaa war a jàng toogu nag te sa copain bi nag bu fi ñëwee rek jox ma ko bàyyi ak man rek nag ma coaché ko wax ko nag ne ko dangaa mën a toog di ko ruube bàjjen nag woo na ki nga xam ne mooy Ndeye Ndiaye nag di ko yeddi nag ci kar bi mu karoon binom nag di ko ñaan nag li nga xam ne moo di xaalis bu mu soloo ci xew mi nag ndax nee na amul nag yëre yum sol ci xew mi nag Ndeye Ndiaye nag na ko demeewul noonu ndax binom karuma ko dama doon dem rek nag ñu daje nag ci yoon bi waa nag bu ñu dajee rek nag dakaa war a mën a ñaan xaalis nag léegi nag bàjjen nee na ko nag loolu tegoo ko fenn nag ndax man ni nga xam ne nag maa ci kër gi boo waxtaanoo nag man nag ma réglé nag sa situation te du génn sax nag ci biti nag bu nga koy wax binom nag wala bu boobaa sax nag man ak yow mën nañoo ànd nag dox li ñuy dox nag ba binoom jox la sax lu ëpp loolu day njaay nag léegi juboo nag bàjjen nag bàjjen jëlaat na xew mi yëpp tekku ci loxoom ndax moom xew mi da koy nangu rek ak di ko joxe foofu la toll ki nga xam ne nag moo di sën nag aw bi nga xam ne nag dafa yaatu ginnaaw macha allah woona nag ki nga xam ne moo di ñaareelam nag di astu nag di ko juboole nag ak doomam aw ndax fan yi yëpp nag neexoowuñu woon yedd na nag ki nga xam ne nag moo di awa nag waxtaan na it ak moom nag nee na nag ni nga def sa yaay nag tegoo ko fenn ba léegi nag awa nag juboo na nag ak yaayam nag ba sën nag kontaan na ci lool awa nag jug na dem nag bi mu demee nag la ki nga xam ne nag moo di sën nak ne ne astu nag duma la jox nag toor nag ci kanam awa nag waaye yow sa bopp yaa war nag fexe nag di jege awa nag di waxtaan ak moom bu baax a baax ndax sa doom la ba léegi nag sën nag juboowaat na bu baax a baax moom ak asu nekk si jàmm ñi ngi yem ak yéen fi rek di leen wax nag ngeen ñu topp rek suñu chaîne bi di suñu gox TV di leen abonné tey bés cloche de notification yi ngeen jëf